argument pour tas euh, bile assemblée nationale man biram manquéwul mais euh, tay di euh, ak projet de loi bi nga xamanteni rejeté nañ ko débat d'orientation budgétaire bi ñu bañal gouvernement bu est-ce que ñu jox ñi nga xamanteni ñoy défendre boobu le que dañu wara supprimer vay que vay cette assemblée ñu leen jox argument yu ñu gëna mëna tek sur la place publique mom kay dañu joxe argument non pas que dañu wara dissoudre euh, euh, euh, dañu war a effacer législature bi mais am na ñuy ne assemblée nationale am pour tout simplement comme nu ñu député mais xam nga li lay ne vote bi bettul daanaka kenn. te ñi nga xamante ni ñoo ko déposé jàpp ne xalaat nekkuñu sax disposition député yi sinon doon nañu déjà entamé ay discussion dem waxtaan le président assemblée nationale da ngay gis sax ci yenn pouvoir yoo xamante ne nii. Mhm. amoon nañu fi bu projet de loi amee. Mhm. pouvoir bi day dem di négocier ak les députés euh, de l'opposition de l' bu xalaatee né mom majorité am du doy pour ñu jallalé ko. Mhm. mais bi da ngay gis né ni dañoo dem déposer le décret au niveau euh, de l'Assemblée Nationale. nationale. Mhm. jéemuñu def ben démarche même ñi nga xamante ni mën nañ leen considérer comme leur allié entre guillemets. Mhm. muy wa PDS yi. waxtaanuñ ci ak ñom donc ce qui veut dire que ñom dañu tagal député ab loi dinañ leen bu ko

ñu comme ni ñu ko daan gisee ay initiative pour waxtaan jéem a convaincre ñoo xamante ni xala xalaat nañu ne mun nañ ko ñàkk voté hmm. ils ne l'ont pas fait dañu ñëw rek déposer affaire bi bàyyi les députés ak leur propre responsabilité hmm. parce que quand même wàllu euh, conseil économie social et environnemental ak HCCT euh, hmm. mais waa Benno Bokk Yaakaar yi laa gis ñu nekk euh, rek laa gis Les politiciens sont ne d' accord d' accord nañ ci. ñoom rek. Mhm. élection yi passé même Amadou Bassa, nous avons exprimer wu euh, sujet bien vrai que nous avons na wax continuité lay mhm. mais donc amul kenn koo xamante ni d' à part waa Bennoo Bokk Yaakaar existence institution yooyu nga xamanteni Macky Sall daf ko créer ci lu ko neex tout simplement. expliqué na fi la dernière fois jox na assemblée nationale Ben allié il fallait que mu créer Ben affaire jox ko benen allié. lool rek moo ko ci dugal. Mhm. légui nak bu nekké ñëpp d'accord nañu que projet de loi euh, bi institution yi muy viser sénégalais yi dañoo bëgg ñu dindi leen wala en tout cas ñi ëpp ci sénégalais yi te ñu manifester ko ci vote bii passé mhm. puisque cinquante quatre pour cent bu ko président bi nga xamante ni ci programme am wax na ne dama bëgg ñu dindi institution yooyu kooku bu ñu ko voté au premier tour mun nañu xalaat ne sénégalais yu gën a bëri ànduñu ci loolu mhm. mais bennoo bokk yaakaar seen député yi ñoom nekkuñu ci li nga xamante ni moo neex askan weeg lu ko neexul mhm. te ak vote bi nii ils en ont donné une autre preuve encore voté nañ fi ne dañuy euh, yóbbu ay magistrats commission d'enquête parlementaire par cette dernière guerre. Dieu faut vous fixer une date de l'élection présidentielle 15 décembre bii di mhm. député donc nous dañu dit waat les sénégalais yi bëgg que Macky Sall les Maroc quelque part di leen di euh, euh, tiire comme des marionnettes mais ñuy obéir leneen loo xamante ne nii nag jar na quand même souligner mooy quand même bloc bi nga xamante ne nii ñoom def nañu ko hmm. man jàppoon naa ne il fallait on pouvait s'attendre à ce que moo am ay deux à trois brebis galeuses yoo xamante ne nii dinañu jaar na le hmm. mais on doit leur reconnaître que hmm. en dépit de lépp liy xew ñoom ñu ngi constituer seen bloc demuñu fenn dawuñu fenn taxaw fas ak jamarlo ak le pouvoir là té c'est loolu moy expliquer 83 députés nga xamné est-ce que le capitaine est-ce que le retour du euh, du capitaine euh, Farba Farba Ngom moo expliquer sen blog bi. <laughs> waaw c'est possible de man ba ma koy gis muy jaar ci aéroport di dem yaakaaroon daal dafa lay jaar. dootul dootul ñëwati mais gars yi dañoo ñeme ñi ci pouvoir bi trop. ma vrai macha allah Sonko day xati rek té du door kep kep kep en tout cas bu ma doon euh, xaritam ni ko gëmmal door <laughs> waaw dëgg dëgg alors.